Mariama Ba Assane ku ki koy jox mooy la grande dame sopp Seydouna Bass la. Mariama Ba des. ñu woo Mariama Ba si. bàjjana gox bi ki yàqu dara ci baraka yi chéri Ibn Ngom Bako. waa ci réew ñoo dem bu ñoo ñàkk ci mu ñoo. dam moo joxe kado bi Aminata Kouaro ku ko gis-gis nga mi mi dara ndeysaan tey jii nag dafa moom la kan kan. ah ayca na ñëw na ñëw ñu ni bari la sant sëy sëy bari nee na René Gueye boppale nga woon Camara Yille la fleur sainte se prépare Fatou Ndaw si Souleymane Diallo Fatou Diallo dañuy classe ana Asana Touba Asana Touba Asana Touba Madame Lo moo tax nga baax loo léegi nag STP ki koy jox atam moom moom mooy Fall parent délai Falilu Babu Falilu Babu moo koy jox Amadou Wuri Diallo na préparé STP Amsatou Ndongo Amsatou Ndongo Camara Seybatou Diallo STP Seybatou Diallo nañu indi yeneen nañu indi yeneen mu waaw comme ci mbir yi moom tamit ñu koy ñaanal seen ànd bu tamit yàlla ci seytaane dugg ñooñu su leen Adama Lo Awa Diallo ki koy jox mooy Marème Bangoura. may mën a mel ak Ndiaye. voilà Marème Bangoura moo jox noonu xale bi kane bi léegi. ki ni woo teewoo teewoo mooy nag. Adjatou Ba. madame Lola. Fatimata Diallo. Fatoumata Diallo Fatoumata Diallo ki koy jox moom mooy Elimane Ndiaye Elimane Ndiaye waaw Elimane a ngi di nii. bu ah. baax nit ku bëgg tamit.